suñu daje bi li ko gën a waral mooy bi ñu ñaanee président de la république ce conseil présidentiel bi ne ko mënuñu fi ñu toll nii rek wax ne lii mooy suñu xalaat ci loi bi ñuy soog a gis daf ñu ko may ñu koy rafetlu looloo waral tey ñu daje fi pour ñetti objectif bi ci jëkk mooy que waa société civile xam li nekk ci loi maanaam balaa ngay critiquer dara naan baax naax baaxul da ngay xam lu ko li mu wund moo tax ñu ne nañu daje càmbar loi bi ba mu leer si ñun benn objectif beneen objectif bi mooy buñ ko càmbara ba pare soog a wax ñun lan lañ jàpp ne mooy li ci baax lu ci baax ñu gën ko dëgëral li ñu jàpp ne mooy li ci euh, li ciy ñuul li ci ñuul loolu ñu fexe niñ koy dindee beneen bi ci mujj nag mooy fexe ba li nga waxtaan ñu fexe ba ñu jàllale ko ci biir loi bi loolu nag am nañu ñaari yoon benn yoon bi si njëkk mooy ñu jaar ci nguur gi balaa ñu koy adopté en conseil des ministres buñ ko adopté en conseil des ministres tamit dese nañu beneen yoon mooy assemblée wax ak député yi ba député yi aussi gën a mën a xam li nekk ci loi bi bañuñu sax dem ba former député yi balaa ñuy jàllale loi bi ci assemblée nationale pour dire que donc lépp li nga xam ne jar na ko pour que li nga xam ne ju juddoo na ci euh, suñu ndaje bi eh bien dinañ ko def dañuy wax ne bu njëkk euh, kii li nga xam ne moom lu loi na lay jaaree pour ñu adopté ko yoon bi yoon bi mooy mu jógee euh, conseil des ministre dem assemblée. mais tey bu fekkee ne avant ñu koy dugalam conseil des ministres nguur gi euh, boole nañu si waxtaan bi lu ñuy rafetu la day loolu day day dëgëral rek dañuy wax démocratie représentative moo tax nag ñun mënuñu def ginnaaw moo tax ñu booloo ñun société civile waxtaanee ko pour que lépp lu fiy juddoo même ñi fi nekkul. te mos liggéey ci mbir mi dinañ jël ñoom seen i contribution boole ko tënk ko mu jébbal ko nguur gi jébbal ko député yi ba nga xam ne loi bi di nga gën a méngoo bëgg askan wi. xam nga rassuré moom yàgg nañ ko def ñoom si ay wax mais ñun dàpp nañ ne wax rek du doy li nga xam ne moo juddoo fii ci kuréel gu fi teewu dina jouer rôle bi nga xam ne mooy rôle de veille et d'alerte maanaam gëstu loi bi topp ko. topp nañ ko ci biñ koy bind dinañ ko topp buñ ko adopté ba pare topp ko buñ koy doxalal ba nga xamante ne dina continuer di wéy ci li ñuy associer société civile ci euh, processus bi ba askan bi di gën a gis seen bopp ci euh, ni loi bi di joxe ba meññee fi juddu ci li ñuy yoree alalu réew mi meññee fi juddu ci alalu réew mi askan bi gën ci gis seen bopp